sunu édition spéciale bi ñu jagleel wàcce gi ñu wàcce Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé rempli ko ak euh, Marie Khemesse Ngom Ndiaye léegi mooy ministre de la santé bu bees bi euh, ci wàll yu ba léegi waa patient en danger Nina Penda Faye ci nga bokk maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Makumba di la nuyu di nuyu sénégalais sénégalaises yi déglu RFM. Hmm. Euh, di mastawu suñu mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen doom ci hôpital euh, Maam Abdou bu Tiwaawan di leen euh, jox si di leen jox suñu jaal di leen mastawu baax di mastawu. di rafetlu liggéey bi ngeen di def Makumba. Euh, tey ci suba ñu ngi àndoon nag euh, seen euh, njiit muy Gaël Babacar mbay muy wax ni mbir mi jéggi na dayoo léegi nag lii jéego la boo xamante ne ni beneen bu ci topp la yéen nan ngeen ko gisee nan ngeen koy apprécier waaw li ñu nommé ministre Marie docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ministre de la santé dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu ci ñaari anam ndax xam nañ ne technicienne la technocrate la Euh, maitriser na li muy liggéey te ñun suñu woote ci suba ba léegi ak li ko jiitu dañuy ne na président de la république Macky Sall di teg ñi nga xamante ne ñoom la seen xam-xam màcc am compétence ak capacité yi fi ñu leen war a teg mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ndax Sénégal loolu la soxla ñu wàññi politisation des postes surtout ci li nga xamante ne moom moo jëm ci santé di wérgu yaram dañ koy rafetlu benn loolu mooy benn bi ci rafetlu ñaareel biñ ciy teg mooy jigéen la te dañoo bëgg nag euh, jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci réew mi am compétence ñu jox leen seen wàll ak seen àq ndax mën nañ ko bu ñu leen ko joxee ñu def ko rafetlu également liggéey bu mucc ayib bi mu def ci li nga xamante ne moom la ñu weesu suñu ginnaaw muy Covid bi gis nañ ci lim ci liggéey mu nekk liggéey bu am solo moom ak yeneen jigéen ñoo xamante ni ñi ngi ci réew mi seen xam-xam màcc ñu leen di woo fépp ci àddina bi ñuy yóbbu seen expertise te expertise boobu Sénégal war na ko mën a jëriñoo ñu ngi koy rafetlu ba pare nag di ko woo ci li nga xam ne xam na ko liggéeyam la maîtriser na ko di ko ñaax rek ne ko ne li nga xam ne moom la ñu dund Louga dund ko Kaolack dund ko deux mille 2001 dund ko Tiwaawan naka démba dañuy dañu bëgg mu nekk loo xamante ne mauvais souvenir lay nekk 2021 mm. li ñu dugg dund Linguère mm. dund Euh, réseau bi moom moo stable. ñuy nekk dañuy ñaan yàlla mu nekk loo xamante ne euh, du lu du lu du ñuy dundati mu nekk lu weesu loo xamante ne euh, suñu ginnaaw lay féetee. léegi balaa ñu lay yoromal nii la pen dafay nii mhm. bala ñu lay bàyyi nga dem. kii di ñëw Marie Xemes Ngom Ndiaye mi bu yéen lan ngeen jàpp ni moo war a doon priorité mu war ko lijjanti ci système sanitaire Sénégal. ni ñun dañoo bëgg audit bi nga xamante ne moom la ñuy wax boobu ba léegi ci structure sanitaire yi ci hôpitaux yi Sénégal yëpp audit bi bu dee lu ñu deful la nañ ko def li nga xamante ne moom moo ci sooke ñu ñu faj ko ñu saafara ko ndax xam nañ ne fi ñu toll nii structure sanitaire di hôpitaux yi Sénégal dañoo am jàngoor dañoo feebar feebaree mooy malaat yi ñëw tamit lu ñu mës a wër ndax euh, ñun ñëpp xam nañ ne jafe-jafe yi ñuy dund ci structure sanitaire yi euh, loolu pour ñu lijjanti ko il faut ñëpp dugal ci seen loxo mais moom mi ministre la ñuy wax ni structure sanitaire yi li ci war muy plateau médical bi nañ ko liggéey audit bi pour ñu am structure sanitaire yu baax nañ ko liggéey personnel médical bi également nga xamante ne sénégalais yi dañ fay dem di ñaxtu ak di mettitlu ni nga xamante ne noonu lañ leen di recevoir ak noonu lañ leen di teeroo nañ ci nañ ci def ay jéego ndax ku ne bëgg nga boo feebaree boo demee jàkkaarloog docteur bala ngaa yegg si moom sax ñu recevoir la niñ la war a toppatoo ñu toppatoo la wax la wax bu neex wax bu dal boo xamante ne dana au moins euh, mën a dalal sa xel. Mm-hmm. jërëjëf na ñu ngi lay gërëm di la sant ma Makumba.